jaajëfal alxaaji sëñ si Sylla mi nekkoon ci jotaay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak ciraanga ak poche def dara tabaarakallaahu démb bi ñu yëkkati bi ñoo ngi woon ci tomb euh, yarkat bi nga xam ne ci daara lay yare <coughs> ginnaaw bi ñu jiitalee yarkat bi nga xam ne ci école lay yare ba indi woon melokaanu yarkat boobu tolloon nag ci melokaanu yarkat bi yare ci daara <coughs> yarkat bi yare ci daara ñu tàmbali woon démb ne daa war a am gëm gu gëm li muy def waaw tegoon ca tombub xàmmee ñim yor gëm li muy def dana am lu muy def ci liggéey bi waaye xàmmee ñim yor dana xam am lu muy def ci liggéey bi ma ne démb ci jataay bi sallallahu alayhi wa sallam boo masaane Abubakar am na lu mu cay teg boo ne Omar dégg ngeen lam ca teg alfaaruq <clears throat> alfaaruq moo tax kero bi Abdullah mu Salul <clears throat> rasul nifaaq faatoo nga xam ne naafiq yépp mooy seen président mooy seen secretaire général mooy seen amir alayhi salaam salaam salmbu ba mu fas ko yéene jullee ji Omar ni mukk <clears throat> mu ne ko ah kay Omar ne mukk mu ne ko ah kay <coughs> Omar mu ne ah, mu ne ko sunu borom moo ma ne wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamina kon ñëpp dugg nañ ci biir su ma xamoon ne su ma ko jullee juróom-ñaar fukki yoon sunu borom du nangu waaye su ma ca tegee benn ma nangu jaral na ma ma teg ca benn yërmande jooju moo nekkoon ci alayhi salaatu salaam jëm ci nit ñi jëm ci xeet wi bu ñu ma sànnee Seydina Aliyu ne karramallahu wajhahu moom lañ koy ñaanal karramallahu wajhahu moom lañ koy ñaanal wala boog moom lañ koy bàkke lam yashribil xamra lam yasjud illa sanamin waaye baabul ulumi nag yonente baa ko ca teg baabul ulumi bu fekkee xam-xam ab pale la port ba cay taxa dem mooy sidna Aliyu yonent bi ne bu fekkee man sama jëmm ji mooy xam-xam jëmmam ji mooy bunt bi seetal lool Usmaan ibn Affaan fu ñu ko tuddee rek xel xel yépp dem ci tab ga kersa kenn du moom tab ga kersa xàmmee ñooñu ci koy yar dafa am solo te ñoo ñëpp ñu ngi ci gone yi gone yu góor yi gone yu jigéen yi ñoom ñëpp ñu ngi ci biir moo tax suñu waajur wa sëriñ saalihu radiallahu taala dégg ngeen ñenn ñi fekke nañ digganteem ak tuur tànk yi digganteem ak gone yi ndax wolof dex gone waaye gone mooy ku xale yii ngeen yor ku ne ci ab Abubakar ngi ci am Omar ngi ci am Usmaan ngi ci am Aliyu ci gone yi ngeen yor bu dee jigéen yi Xadiija ngi ci suñu yaay Aysa ngi ci ba baa ngay jeexal kon xàmmee xàmmee gone yi dafa am solo lool bu defee gone gu nekk nga jéem a doxal nam mel yokk ko waaye du jóge ci daara ji mukk dem ñu naan accam léegi-léegi daara ji nit ñëw fi di jàng si duñ ko jox temps bu doy wax naa ko démb indi gone gi ma def diir tàmbalee yeewu tàmbalee ubbeeku nga jël yóbbu foo ko jëmee waaw day day jàngi école day jàngi tubaab kañ la fi tubaab gën gëm al gën alxuraan ah en tout cas day jàngi tubaab ndax jàpp nañ ne al alxuraan du métier <laughs> suñu pecc yee titi pecc mi tabarkàlla doy na waar ñoom jàpp nañ njàngam alxuraan du métier waaw tabarkàlla waaw mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk ci ak seen njaboot waaw bokk na ci yooyu soxna ñinde <laughs> eh, tawsiiful afraadi fil masaraati daawiya al munasaba maanaam gone yi bu fekkee da leen di jàngal daara léeg-léeg woo ci kenn ne ko defal ñu nangam dafa na exposé lañ ko doon tuddee dana am ci école yi léeg-léeg yu xaw yee mag ñu def loola benn exposé loolu daa baax ci ndaw ñi bu ko defee mu toog moroomam yépp toog ñu ne ko duñu bëgg tey nga waxtaanal ñu ci nàngam tem bañ doon léeb ak lu peen wala ay maye loolu baaxul ci yarub gone léebak ak lu wala ay maye baaxul ci yarub gone waxtaan ñu ne mu ne benn paa la woon déedéet walla benn meer la woon déedéet loolu baaxul kon gone yooyu nga xam ne moom la ñu daara bi yor di waxtaan ñoom saa su nekk benn bis mu jël genn gone ne ko acca waxtaanal ñu ci may lekk waxtaanal ñu ci may ak lekk gone ga waxtaan fañ ca toll ak nam ca toll bu juumee bul dóor bul pes bul wax juum nga dañ koy tàccu ñu tàccu gone gi tàccu gone gi tabarkal la loola mu waxoon da koy denc du ko fàtte ndax tàcc yaa koy tàcc yaa koy rokkas ci xel mi waaw bu ko defee mu téye loolu loolu nag lu am solo la ci pénc bi boole gone yi ci yëf yi danaay dégg léeg-léeg xale ne dañoo am exposé tey maa koy def ci nàngam laa koy def ma ne waaw góor am na solo lool ndax xaaj Abdul Aziz Al Amin ndeysaan sunu waajur wa sunu xarit ba sunu sëriñ ba <laughs> allahu akbar daana wax ne loo nekkul ndongoom doo nekk sëriñam tigi loo nekkul ndongoom doo nekk sëriñam kon di def loo gone yi expose yooyu dana leen jàngalaale ci biir lu ñu tuddee communication dana leen may fitit ëllëg ñu mën a toog ci mbooloo wax te duñ def au te duñ patiner ndax wax ci mbooloo yombut waaw wax ci mbooloo yombut ndax léeg-léeg nga gis kuy wax ci mbooloo ba séen kenn ci mbooloo ma kum jéppi jël wax jépp jal ko ko loolu baaxul walla nga wax ci mbooloo ba sa xel dem ci luñ la waxoon nga jël la des ci waxtaan wu yëpp tontoo ko loolu jaru ko wala nga wax ci mbooloo mu yàgg nga séen ko def sikk nga jël sikk soosa loolu jëru ko déedéet jaru ko de waaw lu jara bàyyi xel la <laughs> waaw loolu nag ñi ngi koy jàngal gone yi ca njàngum gone ba ñuy gone ñi ngi koy jàngal gone yi njàngum gone ba ñuy gone ñu màggaale ko xam public xàmmee public yi xam technique de communication xam yi fi pénc mi toll ak xàmmee lool bu ñëwoon da koy xajamal loolu xam ko day am solo lool xàmmee ko day am solo ndax day tax ñi ngay woo wuyu si ba yomb leen penc mi ngay defar defaru gi yomb te itam doo leen jëppi duñ li jëppi ala ko li xaal tomb la bu am solo ci jàngalekat yi mooy bi nga am bi nga gëmee mécc mi bi nga xàmmee gone yi ah danga leen war di sant nag dafa leen nangam def leen nàngam wax leen nàngam waaw léeg-léeg ñu dem ca daara ji ne xam sa diine ma tàngal waaw indi samay mbuus ci tàngal xam sa diine ma ci tàngal ana ko fi xam diw ana ko fi xam nàngam ana ko fi xam saar sàngam saar sàngam wan saara ko féete kaw saar sàngam wan saara ko féete suuf yooyu ngay ànd ak gone yi te tàngal ji di génn ñuy màcc benn mel ni pénc la moo xam ne pénc moomu tabarkàlla <laughs> waaw pénc mu neex lay doon waaw gone yi di màcc tàngal waaw di tontu question yi <laughs> waaw jàngalekat dafa war di tawsif al afraad fil masaraat ad daawiya al munasaba waaw al munasaba nag mooy li tolloo gone yi gone kenn du ko net li xissab mag waaw <laughs> dañu ma mu benn bés ndeysaan ca Louga sunu mbokk mu Cheikh Ahmed Tidiane Gaye ak Sas Aline Guèye dafa génn àdduna ndeysaan ñoom ñaar ñëpp sax yàlla yàlla yërëm leen woyofal suuf ci seen kaw Sas Aline Guèye ku sawaroon ci njàngale te mën a gëstu jamaatu Ibaadu Rahmaan xam nañ ko waaw ñoo am benn bis ñuy exposé ci lu jëm ci wàllu euh, lu jëm ci wàllu yar walla lu jëm ci wàllu euh, loolu ñu tuddee ci penc mi euh, dencum soxna dencum soxna sas Aline Gueye mooy def mooy exposé bi ñuy tàmbali rek comme Cheikh Diagne Gaye xam na ko te man koo tooñ mu ne ko waaw ñaata soxna nga yor mu ne yoraguma mu ne maa ngi Cheikh Gane maa ngi ñibbi ñu ne lu xew mu ne daje <laughs> di waxtaan ci mbirum sëy jox ko ku sëyagut loolu loolu xel nanguwu ko ñëpp këpp ci suuf ndeysaan waaye xam yooyu dafa baax di sant gone yooyu itam dafa baax na ma diw defal nangam ku xam nangam ma jox la nàngam ñu nekk ci loolu di ko di ko doxal mbokk yi tomb yii ma tollagum ñetti tomb yii ma tollagum ku leen boole ñoom ñëpp ci sa jàngalukaay ku leen boole ñoom ñëpp ci sa jëmm ñi ngay jàngal jëli leen fi nekk yóbbu leen fu gën day yomb ñi leen ñi ngay jàngal jëli leen fu mat yóbbu leen fu gën a mat day yomb ñi ngay jàngal jël leen cig mat ne yóbbu leen cig mat day yomb la ci jiitu kon ma waxaat ko mooy gëm li ngay def gëm li ngay def am na solo lool waaye def loo gëmut baaxut waaw gëm li ngay def am na solo lool waaye def loo gëmut baaxut nit koo xam ne li muy def gëmu ko déedéet ay ruusit la ci jubloog yuy yuy tombe ci moom yooyu la ci jublu loolo baaxul ci ku yor daara waaw baaxul ci ku yor daara waaye xàmmee gone it xàmmee gone yi bu njëkk boo masaan gis mag ñi di yalwaan loo dañoo xàmmee woon gone yi gone gu jóge kër papaam te dara manqué fa waaw gone gu jóg kër papaam te dara manqué wu fa mu ñëw ñu wut ab bool jox ko ne ko demal yalwaani añ waaw demal nga yalwaani añ ñu jox ko xale boobu te kër baayam buñ daan añ te tabarkalla <laughs> tey nag mu ñëw rek ñoo jox ko pot ne ko demal yalwaani loolu am na ñu ko munta firi am na ñu ko munta firi waaye daara moom mën na koo firi mooy bu ñu xàmmee gone yi ñu ci am ak rëy léeg-léeg mooy ña seen kër baay manqué wutoon dara bu ñëwee bu ñu leen joxee loolu dana dindi ak rëy ci ñoom ndax ku rëy munta yalwaan ku rëy munta laaj mukk ku rëy mënu ko te ku sa ku sa ku sa xol def fépp ceeb ci rëy wala fépp suuf wala lu ko gën a tudd ci rëy alayhi salaatu salaam nee na amoo fa amoo fa kër ndax da ngay nit ñi waaw rëy baaxut waaw jikko yëpp moo ci yées yàlla ñu musal te musal leen ci ma ne kon su fekkee nun la gëm na li muy def xàmmee na gone yi léeg-léeg mu tànn ci gone yooyu mu xam kenn ne ko defal ñu nàngam loolu lañ tuddee formation ci wàllu daawa waaw formation ci wàllu daawa ndax wa allama aadama asmaa kullaha am na solo ci aadama wa yaa aadam uskun anta wa zawjuka al janna amal na solo aadama bu njëkk bi mooy jàngal bu ñaaral bi mooy defal formation formation yi penc mi nag léeg-léeg ngis koo xam ne ki dafa defab école am di former te amut diplôme amut autorisation xaalis rekk lay wut xaalis rekk lay wut nga jàng fa benn ar foo tàllal si diplôme ñu la bii reconnaître uñ ko foo ko taalal ñu ne bii reconnaître ñu ko te ñu la doon fayloo weer quarante mille weer cinquante mille te penc mi caution muy dox mu nga ca formation ya waaw caution muy dox rek ma nga ca formation yi ndeysaan dañ may damay def formation looy def mu ne nàngam ñu bari ci ñoom waaye formation yooyu noonu la amee ci daara ki jàngale di ko def ndaw lii di ko tàggat ci doylu ba mu xëy doylu di ko tàggat ci euh, fit ba mu xëy amu fit amu fit nag jubluwuma ci fit wow da tooñ ci penc di xeex rekk jubluwuma ci loolu amu fit mooy ñeme àdduna waaw euh, barki démb damaa romb Cees walla damaa demoon Cees bi muy ñibbisi ma jàpp benn rajo xam naa bu dul 88 point 8 it soriwu fa mu dalal jenn waay waa ji di waxtaane démbam di waxtaane depaaram ak tuut sa ko yaayam joxoon ak nim def ba nekk un grand commerçant waxtaan wa am na solo lool waaw ndax nit nit formation daa am solo ci moom bi yaay ak baay di def am solo ci moom waaye nit ñi nu ma yàlla baal ca war a teg toog ci kër gi forme xale yi dem ci biti moo leen ko gënal di dem rek waaw fab sa doom bàyyeeg mbindaan mi te moom amul formation waaw dégg fan yi sidd éducation bi ñaari soxna yooyu duggee ci wàllu mbindaan yeeg doom yi ak booy dem li nga fi bàyyi ci wàllu ay directive walla ay ndénkaan ak ni nga ko fi bàyyee waaye boo ko bàyyee ku dëgër bopp walla ku amul formation it foo xale bu waxee rek mu dóor fu mu waxee mu saaga ba mu jàgg xale yi dëgër fit dëgër bopp mën a wax lu ñaaw yor ay làmmiñu vulgaire loolu jàngalekat bi ci pénc mi moom da koy xam waaw jàngalekatu daara moom da koy xam li ko koy ma xamal nag mooy xàmmee gone yi waaw gone yépp mu xàmmee leen di dem ci seeni parents ndax mu xam parents yi te xam parents yi day tax mu xam gone gi waaw ma ne formation daawa it mooy soo bokkee ci mbooloo ñu xam ne am na loo xam dañ daan tànn ci mbooloo mi ñooñu defal leen formation ñu dem soo ñëwee ci sunu réew mi am Sëriñ Tuubaa radiyallaahu taala anhu xàmmee gém xàmmee ñi daan ñëw ci moom ñi daan ñëw ci moom moo tax ki nga xam ni ñëw na te man alxuraan ak ki ñëw te mënu ko daaw ñu bokk num leen di orienté mukk daaw leen bokk nu leen di orienté waaw orientation yu jaar ci yoon tabarkàlla ña nga xam ni dañoo mën a yëkkati xasiida te muy xasiida gu wow maanaam duñ yàq baat yi waaw nga ba ki démb ñu ngi seetaan sunu magum daara sëriñ Abdou Samad mu sëriñ Shuaybu yàlla na ko yàlla yokk wér muy jubbanti noddukat yi ci baat yi ñuy yàq ci biir noddu gi waaw lu am solo la waaye ñun loolu jàpp nañ ne ku màgg man moo tax duñ ko duñ jubbanti kenn waaye li nga dégg ko nodd rek tabarkàlla waa jàkka ñëw ne ko da ngay bàyyi <laughs> net ci la woon naa leen moos moo xujja daa yéeg ci daa ñëw ci jàkk ji rek waaye ba mu waxee allahu akbar ak nam ko waxe xam naa su ma bañutoon <laughs> ngeen far yow rekk ba ma ba ma nodd fi noddam googa yéen ñëpp jóg ci lal bi tabarkàlla ma wax leen ko tey waaye kenn musu koo gisee rek nodd gu naqaree nu nodd googu naka mu ko tàmbali rekk waa dëkk ba yëpp génn ne ko dangay bàyyi nodd gi mu ne ah kon day yomb ñu ne lu xew mu ne dama daan cotiser ni ñëpp kon ci jàkk ji laa bokk <laughs> commission culturelle bi daal yi waxtaan ak moom ne ko léegi ni ñu def moom kon mooy man ngay nodd mais nag li nga ko woon bu jeexee da ngay bàyyi seet <laughs> mu indi ay régime teg ñu gis <laughs> ñu gis ne góor gi cotisé na ci jàkk ji trois cent mille <laughs> léegi nag nodd gu nodd gu ne ñaata lañ koy fayu seet te waa ji ba waxtaan wu kenn mësu ko gis rek waaw ñaata ñaata nodd bu ne ñaata mu ne nodd bu ne cinq mille waaye kon kañ <laughs> kañ lay bàyyi nodd bu fekkee nodd gu ne cinq mille te trois cent mille la calculer leen ko waaw maa ngi seen sëñ Abdou Samad mu sëñ Soay bu yàlla na ko yàlla yokk wér di ci jubbanti ndax daa war a daf daf daf nañ ko war a jubbanti daawa it noonu la njàngale it loolu ko tax a jóg mooy jubbanti làmmiñ yi jubbanti jikko yi jubbanti toogin yi lépp nu jubbanti ko waaw kenn bañ a rëy waaw ku nu jubbantil nga nangu léegi nag formation yi ñuy def kon mooy tax nit ki mën a ne ci mbooloo yor micro wax ak nit ñi lu ñu xam waaw formation la ndax gannaaw njàng formation wa allama aadama al asmaa kullaha njàng la njàng la waaw wa yaa aadam uskun anta wa zawjukal janna formation la boo ñëwee ci alayhi salaatu salaam iqra bismi rabbika lasi xalaq jàng la yaayul mu zammil xumil lay la formation la kon ñoom ñaar dañu war di ànd njàng mi ak formation bi dañu war di ànd kon sëriñu daara bi mu ngi jàngale waaye mi ngi forme ay wóotaakoon ñoo xam ne ëllëg si biir bu tëlee waaw walla mu dem xale yi mën koo wóotu walla am ca ñam fa bàyyi ñu mën a wóotu jël relais ba waaw lu yom lu jafe nag la muy wiraate googu waaw bàyyi fi koo xam ne li nga nekkoon ca lay nekk lu lu jafe la léeg la nga bàyyi fi koo xam ne li nga nekkoon sëfu ko yitteelu ko àdduna tukki kon bi nga fi bàyyi koo rek doo am wa naktub maa qaddama wa athaarahum wa kulla shay'in ahsanahu fi imaamin mubin mbokk yi ñetti tomb yi mooy ñetti tomb yi tàmb tàmbali bu ñu yàlla may dund ba ëllëg nu ñëw ci ñeenteelu tomb bi nga xam ne moo topp ci tomb boobu yàlla nañ dund ba ëllëg te weesu ko bu leen neexee ci kanam tuuti ngeen woote ci 88 628 98 98 ngeen bës 2 noo ànd suñu jotaay bi nga xam ne lënd lay am ak mardi maanaam altine ak talaata jataay bi huit lay tàmbali dix heures lay jeex ci ñaari bés yëpp buñ ca wootante man caa laajante laaj yi nga xam ne mëne su ko laaj ci kaw wala jamono ji laaj ci kaw téléphone bi xat ba mën a dugg ci biir jërëjëf sunu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi nii taxaw yor seen i këyit bëgg leen a firiñ fàncal xibaar yi ci tubaab firiñ fàncal na ko ci wolof ñaanal yàlla ñoom ak yéen ak suñ technicien bi waaye ak suñu àndandoo bii di c 3 yàlla yàlla dafar seeni mbir dafar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara gannaaw da doon ci waxtaani moo di seen mbokk Alioune Sall in uridu illa al ma tataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi